أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين آه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ñu war naa beneen yoon di dugg ci beneen xaaj beneen bunt ci jabarul kasri mooy woy bu siiw wi ngeen di faral di dégg inkaarul ahbaabi bal bal baali wa gurubi taxmili zal bal baali washtiyaaqi ilayhim wa xuraabun bayna awraji jufuuna fi taxmili koy fas yéene tàmbali mu ne idkaarul ahbaabi bal bala baali fa xurubi taxmili zal balbaali mu ne idkaaru fàttali ko al ahbaabi soppe ya balbala yëngaali yëngal na sama xel bi bi maanaam jax-jaxal na ko yëngal na ko yëngal na mbëggeelam fa xurubi samay baagu rongoñ tax mi dina dotteeku li zal balbaali dotteeku na mu ngi dotteeku li zal balbaali ngir boobu la yëngal ci yëngal boobu mu yëngal sama xol fàttali ko moo doon fàttali yonent ci soppe yi moo ko waral فاشتياخي إليهم وغراب بين أعرى الجفون في تحمالي فاشتياخي إليهم من سما مبجل نك إليهم من جم سي نيوم سوبي يوي ما دون فاتليكو وغراب البين موي باهاني تاكليكو عربي دانيو غافال باهاي موي بيتي لا بو خامتاني دال دن كو غافال من باهاني تاكليكو بمعنى موم مو خير axara moo xiir ak jufuuna sama petu bët yi di taxmaali ci ñuy doteeku mooy sama rongal yi moo tax soo déggee arab yi naan xuraabul bay baaxañ bi maanaam ñoo ko gaafal ndax mooy tasab mbokk lii yëpp nag dalay fàttali rek ko xus arbaatan min tayri boobu doon alxuraan waxoon neen ci yàlla ibrahima mu ne bi maanaam jëlal baaxañ tan ginaar ak jimbi jàmba bon bu ci ne ñu ngi kii leen jaxase seen yàpp yi teg leen ci ñeenti flan yi woo leen ci montagne yi woo leen ñu daal di dajaloo ku ci nekk nekkaat ci mu nekkoon mooy boo ko yàlla di wax arini kayfa boo koy boo Ibrahima naan rabbi arini kayfa tuxil mawta xaala awalam tawlin boobu aaya boobu noonu maanaam kon benn si picc yooyu ñeenti xeetu picc yooyu baaxaan ci la bokkoon mag ñi nag ak borom xam-xam yi dañ koy firee ni ay jikko la yoo xam mu ngi ci nit te jikko yooyu nit ku ne war nga koo dindi ci yow wa ana saxraanun wa hazhazani habbu riyaaxin min albiqaa'i al awaali wa ana saxraanun man bàyyi maa ngi nekk ku fob ku fob fob mooy ku ñàkk nelaw ku am insomnie wa hazhazani habbu riyaaxi yëngal na ma xabbu riyaax yi uppëp ngelaw boo xamante ne minal biqaay yi mu ngi jógee ci pàkk yi yooyu noonu nga xamante ne al awaali yu kawe yi fatanat ni tilka al biqaa wa haajat fikrati is xostat bi xatmi rasaali fatanat ni yëng fitnaal na ma tilka al biqaa yooyu le pàkk wa haajat fikrati sama sama sama xalaat yëngatu na sama xalaat jaxasoo na sama xalaat daal yëngatu na is xusat ngir ne bu yooyu la foofule lan jàkkleel bi bi place yooyu lan jàkk jàkkleel bi xat na risaal yi ci ki nga xamante ne moom moo mottali yonent yi mu yonent wal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ii fikri madxal amini wala taaba xusuran an darki dalakal majaale mu ne ii fikri dollil fikri yow sama xalaat xuusal madxal amin ci di rab ay tagg yoo xamante ne dina ko tagg ki ñu wóolu ki mu yonent wal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi maanaam wala taaba xusuuram te bul faale gàttañlu bi maanaam bul faale sa gàtt ne ah man de yonente bi sall li ma koy wax ni daal doyul lu may tagg ci moom doyut doy na ah gàttañlu bi daal bu ko faale xam ngeen ne dëgg dëgg mënu ñëw tagg kenn mënu tagg yonente bi ba jot ko waaye nag terewul na nga jéem su ko defee an dar ci zakal majaal yi na nga yokku tagg yow sama xel na nga ma yokku tëbb te bul faale gàttañ lu bi nga gàttañ lu ngir ma mën a tagge yonent yàlla Muhammad bi ñu wóolu boobu an dar ci zaakal majaal yi ngir ma mën a jot boobulee wëndeelukaay majaalu mooy place boo xamante ne foofu la ñuy doxantoo fa la ñuy wëndeeloo jawaal jawalaan mooy majaal mooy loolu jaawala mooy wëndeelu ci arab
علميني بمدحه وانشره نشر مدح الأمين الناشر المقاري
mu ne alli lii nii bi maanaam sunguli leen ma nit koo xamante ne dafa mar ba ba sonn waaye nag nga jox ko mu naan baax na loolu mooy sunguli bi madixihi ci tagg di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa anshuruhi te ngeen tasaare tagg bi nashru madxil amini mooy mu ne ndax nashru madxil amin tasaare tagg yonent bi al amin nashrul maqaali ba léegi it mooy tasaare dëgg-dëgg ay wax yu am njëriñ bi maanaa daal dolli leen ma ma tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit nañu tasaare tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy wóolu moomu waaye ndax nashrul maqaali waaye nañu tagg nañu tasaare it ay waxam ay ahadisam ay jàngaleem ndax yooyu ñoo am njëriñ
قلديني من مدحه بأقودي تزدري في البهاء نجم الليالي mooy xallidiini solal leen ma wala boog rangal leen ma min madixihi ci tagg ko bi uqudin ak ay caq ak ay pas caq or yu rafet cak xeetu wurus yu rafet yoo xamante ne tasdar yi dina xeet fil bahaay ci taar nazmal la ali noset cakk yoo xamante ne soxna yi dinañ koy takk ak lépp loo xamante ne rek soxna yi buur yi lépp lu nit ñi di takk mu rafet rek waaye waaye rangal leen ma ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam cakk wurus bu rafet boo xamante ne dina xeet yi gars yi di sol kon fii uqu uqud soo ko déggee rek bi uqudin mooy bi maanaa ay càq yu rafet bi maanaa mooy baat yu rafet la la la bëgg a junj mooy xeetu wax ju rafet bu mu munti doon rek wala baat yu rafet yu mu munti doon rek waaye waaye nañ ko ko jox waaye mu taggee ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon uqud foofu waaye du firi nañ ko solal càq nii rek déedéet waxin la
كيف مديه لمن قديم زراء جبرائيل الأمين طول ليالي من كيف مديه أنا لك لا تجي كي خمنتني liman xadiimu zuraaw wala zaraaw ki nga xamante ne moom ñeel na ko bëkk néegam ba muy jibril bi nga xamante ne xadiimu zuraaw moom mooy bëkk néegam mooy bale ëttam wala néegam ga mu ne jabrailul aminu jibril moomu noonu nga xamante ne mooy ki ñu wóolu ci tuula la yaale nga xamante ne foo ko fekk mu ngi nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam du tàqali koog moom jibril moom daal amatul soxla ci asamaan waaye daal dafa mel dañ ko def jox ordre de mission rek pour mu nekk ak yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam di ko bukkaneeku mu ne ki nga xamante ne jibril mooy xadima mooy bukkaneeku ëttam googu wala bu néegam googu ana kooku nag kooku nan laa koy tàggee te nga am jibril mooy bëkk néegam ah loolu rek doy na moo tax borom xam-xam yi ne isa tajala zaati tajala tajalla bi kamaalihi moo tax inna allaha malaykatu boobu laahu ba mu tajalee moom malaakaam yi kon dañuy tajali ñoom it ndax salaat yi mooy dañuy tajali ci jëmmi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy loolu mooy xaqiqatul muhammad yi kon xaqu ak xaqaayiqa ni ñoom ñooy wàcc ci xaqiqatul muhammad yi waaw moo tax yàlla su dee jëlee suur ba mu roof ko yontu yàlla moom sallallahu alayhi wasallam kon jibril tamit mënatul nekk asamaan waaye mu ngi ci di bëkk nekk yont bi loolu noonu séeru dégg la laaj alhamdulilah loolu moo tax kon nag ëtt bii di ëtt Seydina Muhammad rek moo war a mën a nekk ëtt jibril léegi
kayfa madihi lahu wa zal kawni kawni turran min sanaahu wa zaaka zaynu rijaali mu ne kayfa madihi ana naka laay mën a taggee ki nga xamante ne lahu ñeel na ko moom yonent bi wazal kaw ni turan te fekk kawnu gi mboolam seen kawnu géeg lu mu lu mu làmboo yëpp min sanaahu ci ay mayam la bàyyeekoo bi maanaam ci leeram googu la bàyyeekoo ci leeru yonent bi moo tax ñu bind lépp kawnu géeg la ca biir yëpp ah kooku su ma ko bëggee tagg naka laa koy taggee wazagat naka kooku zeynu rijaal yi moom mooy taaru góor yàlla yi waaw képp lépp képp ku taar lépp luy taar moo moo ko taaral moom moo tax nga taar loolu la wax na ko sax ci dawaawe ni sit
kayfa madihi fa nayiraani kazal an juumu nazrun min nuurihil mutaale
mu ne kayfa madihi anaka naka lay taggee yonent bi nga xamante ne fan na yiraani ñaari way leer yi bi maanaam ñaari leeralaakoon yi mooy jant bi ak weer bi dañ ci namm kasal an jumu naka it biddéew yi nasurun lu tuuti la lu bàyyeekoo min nuurihi ci leeram gi almutaali bu kawe boobu kooku ana naka laa koy taggee waay
kayfa madihi lahul bihaaru kasal am taaru nasrun min juudihil mutawaali sallallahu alayhi wa sallam mu ne kayfa madd madd si naka laa mën a taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lahu nga xam ne ñeel na ko albisaaru géej yi kasal am taaru ak taw yi nga xamante ne nasratun yooyu noonu yëpp bi maanaam nasrun waykat buur la moo tax nasratun saa mar buta bi dañ koy dagg moo tax mu ne ko nasrun ba léegi mooy loo xam lu tuuti la loo xamante ne min juudi yii ni yëpp mu ngi bàyyeekoo ci tabeem ga al mutawaali bu taftaloo ba waaw tabe bu taftaloo la bi maanaam tabe boo xamante ne amul jeex fu muy fu muy jeexee waxtu bu ne rek yonent bi saa sallam mu ngi am tabe na ko woykat bi waxoon bàyyi na ko jud lii bi lataay fi mu ne yooyu yàlla jud lii dolli ma dolli ma waaye tabeel ma tabeel jëmale ci man bi la taay say ñëwent kooku it muy mbóot mu rëy jara bàyyi xel koo xamante ne bi maanaa su looy jàngal fii da la bëgg a doxalaale seyu en même temps moom Cheikh Ibrahima Niass ci maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaqatu Muhammadiya moo tax mu naan la ci gàttal di la junj ne la moom mënul wax lu mel ni géej gi ni mu toll ak tokki tokk taw yi nga xamante ne bu ci nekk rek mu ngi tagg yonent bi mu ngi ñeel yonent bi loolu la bëgg a junj moo daal su dee nag géej yi ak li ñuy yaatu ak li ñuy fees ah albixaara ak zahirat mooy les océans profonds ak yooyu noonu ñëpp seen nekki nekk du dara lu may di tagg yonent bi di julli ci yonent bi naka tokk tokk yi naka jant yeeg weer yi naka jibril bi nga xamante ne mooy bëkk néegam naka naka biddéew yi ah naka naka naka yi mu nar a wax yëpp mu ne waay waay kon sama wax ji tuuti na waay ci tagg yonent bi kon ana naka laay taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndakate tagg bi bi muy tagg yonent bi moom Cheikh Ibrahima Niass mooy tegtal bi muy tegtal junj yi dëgg dëgg mooy dëgg dëgg tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kayfa madihi lahul ulumu jamian qatratun min fi qahlihi sayyaade sallallahu alayhi wa sallam mu ne kay famadihi ana ak naka lay taggee yonent bi saa seen loolu nga xam ne ñeel na ko al ulumu jamian xam-xam yëpp mboolem seen xam-xamu mathématique science technologie bi maanaam bépp xam-xam boo am feeñ na tey ak suba ak ginnaaw suba ba keroog yàlla di wal buft bi ba àjjana xam-xam yooyu noonu yëpp ak balaa yonent bi ci jamono yonent bi ak après yonent bi te après yonent bi sax amul ndax jamono yëpp jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu ne xam-xam yi ñun yëpp ñeel na ko moom yonent bi xam-xam yooyu yëpp bu bi maanaa mu ngi bàyyeekoo ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jéegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mayab yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci amab yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu bind loolu lépp te loolu lépp ñu ko moo tax ñu bind ko waxin la rek ci naan moo tax ñu bind ko waaye di bi maanaa ci moom lañ ko bindee ci moom lañ ko la sokkee ko yii nii yëpp kon yonent yàlla moo saa sona mooy abul abul kawn bu ko bàyyi waxee mooy bàyyi kawnu gi kon mu ne ci nga xamante ne xam-xam bi lay utiliser sax di ko tagg waaye gàttañ lu naa waay xam-xam yëpp nga xam ne ni ñu ngi bàyyeekoo ci yonent bi ah waaye kon man naka laay mën a taggee yonent bi waaye ah sallallahu alayhi wa sallam ndax bépp xam-xam boo gis technologie wala lu ñu créé tey xamal ne amoon na démb ni ko yàlla waxee wa allamal aadama al asmaa kullaha tur yëpp yàlla di jàngal na ko aadama bépp tur boo am jàngalu ko woon rek bi maanaam yooyu du feeñ xam-xam yooyu noonu yëpp nga am jàngalu ko woon xam-xam yooyu kon loolu du feeñ ci jamono ji waaye lépp nga am wonoon na ko présenté ko malaaka yi naan leen lii lan la yooyu noonu yëpp dina feeñ ci jamono te kon yooyu yëpp ndakate ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax julli boobu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak salaatu fati yu bëri yi moom moo tax science di développé nit ñi di xalaat ah moo moo tax daal day mel ni leer la goo xamante ne ak énergie positive boobu mooy dugg ci bopp science ci bopp homme de science ci bopp professeurs yi ñuy jàngale di inventé ay vaccin di di di di gis lu ne naan lii lii lay jëriñ lii lii lay jëriñ loolu lépp mu ngi bàyyeekoo ci salaat fati yi nga xamante ni ñi ñi koy jàng ñun aarifuna billahi moo tax ba bàyyi waxee su amee taw su amee am na lu tax wala ku tax mu taw mooy aarif yi kon nag xam-xam su amee wala oto bu bees génn wala avion bu bees wala fusée wala ay moyens technologie di gën a avancé moom xam nañ ci aarifuna billahi lay bàyyeekoo ak seen ñaan yi macha allah moo tax kon mu ne kayfa matihi lahul ulumu jami'an mu ne xataratun ab toq la min fi tax lii ci géejam gu rëy googu asayaali mooy bi yolkat bi mooy géej bi yol géej bi nga xamante ne di jeex te day dem rek di gën a bëri waaw géej gi bëri ndox
kayfa madihi liman sanaahu ilaahi munzalun fihi duna ma ijmaa sallallahu alayhi wa sallam mu ne kay fama di yi naka laay taggee li man sanaaw ki nga xamante ne tagg na ko ilaahi suñu boromam mooy yàlla ci boppam tagg na i sallallahu sama borom tagg na ko munzalun fihi li nga xamante wàccee nañ ko ci moom duna ma ijmaali walis ñu koy rafetal bi maanaa walis ñu koy mëmbëstan bi maanaam yàlla bokk tagg na yonent bi ci tagg bu leer nañ abrégé wu ko gàttalu ko tuutalu ko waaye daf ko tagg-tagg bu rafet boo xamante ne mu ngi koy naan wa innaka la ala xuluqin azim bàyyi ñes il faut des références à ce verset ci aay bi ci woy bi moo tax woy bàyyi bu ne rek am na sukkandikukaay kon nag waxuma la sax mindeef yi seen nekkin ak yëpp ñeel yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ak di ñu fàttali taaram ak tagg bi ko yàlla tagg ngir bind bind bi yooyu noonu yëpp ak taar yooyu ndax lépp lu taaru rek soo fàttali ko yonent bi rek xam kon loolu tagg na baatu muhammad rek turu yonent bi rek tagg la moo tax arab yi doon bañ a wax muhammad doon wax muzammam ngir loolu mooy doon contraire muhammad ngir rek dañ ko tagg kon wax muhammad rek tagg la ah constaté taar yi yàlla bind yëpp rek tagg yonent bi la mu ne nag kon ginnaaw loolu lépp yàlla suñu borom yàlla sama borom mi nga xam man moo ma bind man bàyyi su demee ba tagg yonent bi ana man kon nan laay taggee yonent bi waay waay gàttañ laa ci kon loolu la bëgg wax moo tax ma naan kayfa ana naka naka naka kayfa yu bëri di laaj waay waay naka laay taggee yonent bi lu mu wax rek xeeb ko sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ji li bi Seyr waxoon wan wan wan sub ila zaatihi ma chata min sharafin wan sub ila qadrihi ma chata min ism mu ne bu la ci dara jaaxal daal yow daal wan sub ila zaatihi ma chata min sharaf yi mun ngeen wax ci moom lu leen neex ci teddaange mun ngeen ko bind mun ngeen ko wëy ah waaye on sutilagat yi mun ngeen wax tam ci jëmmam ji machete min isami lu leen neex it ci kawe ndax fa inna fadla rasulallahi laysa lahu addun fa yore bu anhu naatiqun bi fammi waaw mu ne ndax inna fadla rasulallah ngëneelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam laysa lahu addun du lu ñu mën a compter ndax bëri ah addun fa yoore bu andoon naatikon bi famille ba nga xamante ne mu war nañ ko mën a génne si génne ni di ko wax wallaay da ngay dem ba sax dañ siy tële law naa sabat xadarawu ayatu izaman axya ismu fii la yudda daadi sariman ak yeneen ak yeneen nam ko wooyee loolu it am naa incha allah dinañ ci ñëw ci tania tania bi mu ne kayfa madihi muhammadan wa huwa ruhun مدحي أقوى مداحه في الكلام من كيف مدحي أنا نكلا يتجه ينتبه صلى الله عليه وسلم محمدا من خمنتنا وهو روح المدح moom mooy ruu tag gi tag bi ngay tag le poème que tu composes l'esprit même du poème l'âme du poème l'essence même du poème c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne aqwa madaahi yi ki gën a dëgër ci ñi ko ñi koy tagg ah ki gën a am xam-xam gën cee dëgër bëri lay mën a créer mën a am invention esprit inventif ak ingéniosité ngir tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fil kalaali mu ngi ci lott su demee ne dafa bëgg a tagg yonente bi daal faw dina lott moo tax waa ji ba mu ko ba mu buséeree ñu ngi koy nettali ba muy tàgg yonent bi tàgg yonent tàgg yonent bi doon dafa dem rek ba sës mu ne ko wa annahu xayru xalqillahi kullihim maanaam ba mu demee ba lotto rek naan amatul baat yi mu utiliser rek mu mu càng ñu ne yonent bi saa sam daf ko daal di feeñu rek dóor mbagg mi naan ko ne ko wa annahu waaye nag moom yonentu boobu xayru xalqilaahi kullihi moo gën ci mbindeef yi yàlla bind yëpp ñu ne kooku kon ak nu mu tolloon ak dayam ci wëy ci yonent bi saa mu dem ba lot waaye yonent bi moom moo ko gàggante moo ko décanté moom moo ko jox yoon kon ndakate kon gën a dëgër ci tagg yi sax ak ku munti doon faw di nga dem ba lot ndax bàyyi fii wane na lottam ndeysaan boole boppam ci ñeneen ñi jéem ñëpp waaye bàyyi nag li mu wax nii dëgg dëgg nag nga xam ne amul morom ci tagg amul morom ci tagg ndax usaajilu bil amdaahi kulla xadimi yuxallidul xayra xalqi kulla yatim loolu la waxoon fa kaabun wa xasaanun wa najlu rawaxati xayru xadimi loolu la waxoon dina dina awlante baat baat ak ñu njëkk ñooñu comme ku mel ni kaab ibnu maali xasanu saabit najlu rawaxi yuusufu ak ñooñu ñooñu ñëpp xayru xadim ñoom ñoo gënoon dina awlaat ñoom baat wax na ko ci njëlbeenu téere bi ndax nee na sax su fekkente ñooñu ñoo ma raw fa in sabaquni bil qaribi su dee dañ ma raw ci yoon bii di tagg yonent bi fa inni na nekk na ci man bàyyi bi xubbi rasulillahi ci xeetu sopp yonent bi yo sotti yonent boo xamante ne jiddul bu tar la saqiim boo xamante ne daal tar na dox na ci jeex na ci takk waaw feebar na ci toll na ci foo xamante ni daal bi maanaa gisul kenn koo xam gën na koo bëgg yonent bi te ku la gën a wër yonent moo la raw loolu la bay wax kon soo gisee ma wax la lii yëpp ngir nga bañ a am kiiraay ci bàyyi ni muy woyee yonent bi ndax baat yi bii di ver bii di ñëw mu ngi lay junj lu doy waar ndax bàyyi day wàcce boppam kon wane bi maanaa lottam loolu du dara ci waaye day wane ne dëgg dëgg yonent bi wane lott wane bu muy wane lottam ci tagg yonent bi mooy mooy réel maqaama yonent bi loolu mooy yëkkatiwaat na yonent bi saa sam teg na ko place am ndax kenn mënul àgg ci tagg ko ngir dayoom ak ni mu toll looloo tax ñoom ñëpp ñu wàccee seen bopp di lot waaye yonent bi nag loo wax ci moom rek tagg nga ko sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon wax ji mu nar a wax nii bu mu la def ci raay mu ne kayfa kayfa id anta aksarul kulli baan حامد الفكر أنت ذو الإقلال من كيف إذ أنت أنا نكا نكا كيف نكا إذ أنت نخيو أكثر يا جن جبت ال يا جن جبت كل باء يا جن يا يا يا جن جبت خل maanaam ñi nga xamante ne doon nañ tagg yonent bi ñoom ñëpp yaa leen gën a gàtt xel yow Ibrahima ana naka nga mën a taggee te fekk yow ñu la fi jiitoon ñëpp yow yaa ñu gën a gàtt xel bi maanaam mu ngi wax ak boppam te xam ngeen ne moo ci gën a gudd xel moo ci ëpp xel mu ne xaamidal fikri yow Ibrahima mii nga xam ne yow yaa ne da ngay tagg yonent bi saa sam te nga xamante ne yow sa xel bi dafa xaamidal fikri dafa fay sa xalaat sa pensée dafa fay da nga gàttan ba ba mu fay anta zu iqlaalin yow mi nga xamante ne yow yaay ki nga xamante ne da nga da nga néewle ah naka nga mën a taggee yonent boobu ah yow mi nga xamante ne yaa ci gën a gàtt xel ci gars yi yaa ci gën a néew inspiration bi maanaam yow mi nga xam da nga dem ba sa inspiration fay mooy xaamidal fikri ah yow antazul iqlaal yow mi nga xamante ne da ngaa da ngaa da ngaa néew néewle xanaa naka ngay naka ngay jéemee tagg yonent saa sa ndeysaan kon bàyyi da doon wàccee boppam waaye nag wàccee boppam boobu du jubluwu ci wàccee boppam nii rek waaye pour wane ne yonent bi saa sam ëpp na lépp loo xamante ni ñu ngi ko koy ràngal ci tànk ndeysaan kayfa laakin xarwilta ko fal li tulfa fi jumuil mudaaxi qabla nawade ndeysaan mu ne kayfa ana naka nga ma bëgg mën a tàggee yow yonent bi saa sam yow Ibrahima Ñas laakin waaye xar harwil na nga gaaw gaawal nga nagg gaaw dawal xëcc gaawantul tatafal nga mën a nga dem xaaraan li tulfaa ngir ñu mun laa fekk fi jumu il mudaafi ci mbooloo yi taggikat yonent bi sallallahu alayhi wasallam xabla nawaali balaa ñuy séddale may yi balaa ñu naan ana ñan ñoo ñan ñoo doon tagg yonent bi waaye ñu war leen jox seen jagle yu mag yi su ko defee waay waay jéemal rek nga gaawantu rek daw bokk ci ñooñu rek ngir rek mën a bokk ci may yooyu ndeysaan ba wàcce boppam kon daal man neexuma baat ak sama damaa gàttañ lu ci way yonent bi gi yëpp jaru ko yow daal jéema demal rek ci rang ba rek nga bokk su ko defee suñuy séddale may ya Ibrahima ñoo suñu ñu mën cee bokk ndeysaan ndeysaan قم وهرول واستنجدا عون ربي مالك النعم العون من ذي الجلال صلى الله عليه وسلم ndeysaan bii nag mooy vers bu mujj bi mu ne kum na nga jóg wa harwil jógal taxaw wa harwil na nga lagg na nga gaaw wastan ji dan na te na nit te na nga sàkk ndimbaliku na nga dimbalikoo aw na rab bi ndimbalab yàlla xewalab yàlla ak assistance am malikin borom bi nga xamante ne ni amal awnu moom moo ni amal awnu mu ne ak a baax waay ndimbalam ki nga xamante ne min zil jalaal yi ki nga xamante ne ndimbalam neama baax na waay awnu al awnu ab ndimbal boo xamante ne min zil jalaal yi mu ngi bàyyeekoo ci ki nga xamante ne mooy jaban borom jalaal bi mooy yàlla suñu borom borom jalaal bu mag waaye ki nga xamante ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ki nga xamante ne rëy na jalla màgg na jalaaluhum jalaalam wa azza màgg na it kawe na ah kamaaluhu matam ji mu ne waay waay jéem a rek nga nga nga lagg te soo demee na nga dimbali ko ci sa sa ndimbalab borom ah ci sa mayet borom ah nga yaakaar ko ci mu may la nga mën a tagg yonent saa sam ndax baax na ndimbal boo xamante ne bàyyeekoo na ci yonent ci ci yàlla moom noonu nga moom mooy ku kawe ci di jël jalaali kon fii la jeexee kon yal na yàlla may ñu ngëneelu liir waxu baay yal nañu yàlla may ñu ngëneelu jéem koo firi ndax mënuñu koo firi tamit ñu nit lott nañ ci firi kii bi waaye ñu ngi dimbali koy ci yàlla di sàkku tëbb si suñu sëriñ Cheikh Maodo Issa yal na yàlla yokk leeram ak suturam ak teraangam aar ko aar njabootam ak taalibe yi yal na yàlla yokk leeram ak sutura suñu xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass ak mboolem yi njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mboolem njabootu Cheikh Tidiane yi ak mboolem njabootu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala llahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu